ministres, Monsieur le ministre des Sports, Monsieur le Président et les membres de la Fédération sénégalaise de basket, chers invités, c'est avec un grand honneur que nous recevons le drapeau national pour défendre l'équipe nationale à l'afro-basket qui se tiendra au Rwanda. Nous y allons avec beaucoup d'ambition et d'envie. Certes, nous avons une équipe jeune, mais nous sommes conscientes de ce qui nous attend. Nous sollicitons les prières et le soutien constant du peuple sénégalais pour un succès éclatant. Vive le Sénégal, vive les Lyon. Merci de votre aimable attention. tey préparé wuñ nañ xam nañ lu ñuy xaate incha allah bëgg nañu relever défi bi bu baax a baax. en ce moment xam euh, Sénégal am na les atouts nécessaires pour remporter ce concours si on sait que actuellement concurrence dafa assez waaw concurrence bi dafa metti je pense que tey équipe bu ñëw ci Afrobasket bi rek danga ñëw euh, pour pour pour remporter coupe bi donc ñun euh, mentalité boobu la ñu mësee dem ci Afrobasket donc tey je pense ñu dañu war concentrer aussi lu ñuy def euh, gëm nañu suñu préparation gëm nañu coach yi li ñu def loo et li ñu jàng yëpp gëm nañ ko aussi donc loolu après dañ ko war a montrer si terrain bi incha allah ok merci. dem pour euh, pour xeex yi parce que nee na Sénégal euh, dafa tàmm di jël ndam depuis 2015 euh, jëluñu ko donc sas nañu waaye ñun suñu xel mooy ñu def li gën essayer def li mieux que 2021 et et voilà li ñu yàlla jox rek après ñu jël. défi la. défi bi mooy def mieux que 2021. voilà. <laughs> gis nañu également 2015 bokk nga si ñi nga xam ne ñoo yëkkati woon trophée bi. waaw ngeen demaat en 2023 fas yéene ak euh, xale yi nga àndal euh, teg leen si yoon bi parce que dem euh, jëli coupe dafa metti coupe dafa metti donc ñu guider leen ñu góorgóorlu parce que xam nañu mës nañu gagné donc xam nañ ni mu méttee donc nañu dem rek xeex parce que xeex la match après match rek chaque match da ko war a xeex. pour nga mën a am li nga bëgg. adversaire yi ngeen bokkal xam ngeen ci ñoom waaw xam nga Mali moom tàmm nañ ko euh, Mali moom du ñu mën a wax sax ay du rivalis rivalisante wu ñu daal mais voilà euh, suñuy adversaire lañu euh, mës nañ jouer contre ñoom mës nañ ñu dóor comme ñun mus nañ leen dóor. donc bii paa daal nañu góorgóorlu rek pour indi ndam bi après Ouganda tamit xamuñu ko noonu noonu mais gis nañ leen si fenêtre qualification yi. Euh, très bien euh, loolu laa doon wax euh, xale yi muus nañu mën nañ basket am nañ talent facilité nañ ñu lépp jox nañ ñu jox nañ leen cër tamit parce que soo bëggee ñu jox la cër fa nga jox nga joxe cër donc voilà xeex nañu te ñi fi nekk ñëpp elles méritent celles qui sont pas là aussi méritent le groupe de 19 était c'était vraiment un très très bon groupe donc donc voilà c'est une sélection coach bi def na choix am donc ñun ñooy dem représenter ñi fi nekkoon ak ñi fi nekkatul donc voilà.